ajmaka lu ci tege. jërëjëf oustaz wàllu auditeurs yi de moo ci topp ñu ne ci biir réew mi ñi nekk bitim réew yëpp mën nañoo jokkoo ñun ci. ñu nekk ci biir réew mi ni ñuy def. ñooy woote ci 88 628 98 98. ñu nekk bitim réew. jaar ci 33 841 22 33. للخلق كلهم للخلق ارحم بيعا defe naa ne am nga fi ay eh, laaj xanaa ma jël kii kon waaw kay ñu jël kooku boole kook laaj yi ñu mbokk yi bind ci email bi di albidayatu arobas yahoo point fr asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah waaw kay yaay Kumba Jóob waay jàmm rek kay Jóob Jóob maa ngi nuyu jàngalekat bi de Sall maa ngi <laughs> jërëjëf jërëjëf. yoo ko wax ji rafet na al mustasidiin wal mustasidaat ni ngeen ko leeral tey am na solo lool. lool macha allah ndeysaan yàlla dëgëral taxawaay bi. amiin. Mhm. maa jël sama nuyoo di ko jox première dame. ñu mhm. ma waa kër bi yëpp Sénégal diine ji nañ yàlla fàkkal ba ngeen dugg ba yu bari mën a régler allah. Mhm. waaw ma doon laaj nag suratul xalaq xalam waaw waaw waaw nuun wal qa bismillahi rahmaani rahim nuun wal qalam wa maa yasturuun te bopp ba rek waaw baax na waaw di leen ndokkal ci yoon ci jamono yi Seydina Muhammad yi ñu nekk nga xam ne moo ayee di leen ndokkeel itam ci gàmm ci màggal ji passé hmm. di ñaan yàlla jàmm mu defal ñu ko defal ko mboolem bi maa ngi nuyu sama doom bi Ndeye Fatou Camara mboolem ñu nekk ci rajo bi woote ñëpp ak ñu jërëjëf ah, Diop jërëjëf aleykum salaam wa soxna Kumba ñu ngi koy nuyu baax a baax Diop di nuyu waa Caaroy yëpp. waaw waaw mi mi ngi tudd uh, Aminata Koundoul ma nga fële ca sëñ Mbàkke di ànd ak ñun bi. ñu ngi koy nuyu uh, waa Canada yëpp uh, te leen bëggee soxna Kumba nee na Oustaz dafa bëgg nga ñëwal ko ci suratul xalam. Mm-hmm. nuun wal xalami wa maa yasturuun. maa anta bi nixmati rabbika bi majnuun. tabarkal bismillahi rahmaani rahim subhanaka laa ilma lana illaa maa allamtanaa innaka anta al alimul hakim suñ mbàkk sunu borom daf na yonent bi ginnaaw bisimilah rahmaani rahim nuun daan ne ko wal qalami wa maa yasturuun giñ naa ci bindukaay ak lépp lu bindukaay di bind mooy yàlla looy giñ mu ne ko maa anta bi ni'mati rabbika bi majnuun yow baa doo la est-ce que daal mooy yonent bi yow man gin naa ne baadoo la woo. Mhm. suñu mbàkkee. Mhm. jëf jëm jëf ba tax yàlla na ko baadoo la woo. Mhm. mooy daf daan naafila guddi. naafila gi yàgg lool sunu yaay Aïcha. ne ko nag kaay nga noppalu. ginnaaw yow yow la yow yàlla jégal say bàkkaar maa taqaddama wa maa waaye ñëwal noppalu nag. mu ne ko Aïcha mu ne ko labbayka mu ne ko looloo jur sama coon bi. li ma jéggal bàkkaar yi la jéggal ma bàkkaar yi laa bëgg koo wan ne ko gëm yëg naa ko wallaahi sunu borom ne ko maa anta bi ni'mati rabbika bi majnuun yow baa doo la woo parce que sëñ Mbàkke ci def def mhm. Mhm. réaction yi def def ci la ñu xam nit ki ndax baadooloon wala baadolowul dëgg la loolu rek la mhm. mu ngoog loolu la ko sunu borom wax ne ko nag wa inna la wa wa inna laka la ajran xayr mamnuun wallaay doon ko wax wa innaka la ala xuluqin aziim sa ñàkk baadoolo googu mm. dana la jural pay ko dul jeex fa ba faw mooy wa inna laka la ajran ghayra mamnun waaw waaw hmm? saw tagg du du fay mukk hmm? wa innaka la ala xuluqin azim li la ko may nag hmm, mooy jikko yu rafet est-ce que kon la kon bopp saar wi yëpp daa mel ne ku ciy tontul yonent bi waaye di ko di ko di ko fàttaliwaale li mu am rek waaw rek ndax dañ ko wax ne ko dafa dof waaw ne ko nag woo te ñàkk a baadoo dana la jural lu bari. Mm-hmm. Mm-hmm. te li tax baadoo la woon ak. Mm-hmm. suy jukkoo rafet. macha allah wa shukran. est-ce que euh, am na solo de oustaz saar woowu de xam naa danañ ci ñëwaat jàngat ko ndax euh, dafa neex lool waaw mënu fee weesu mm, te daa mel ne itam da koo jëlal da koo jëlal paar daal waaw yàlla da koo yónni ba noppi toppaat ci ginnaawam di ko tontul xam nga pénc mi dañ ko doon jéem a jabalisi ci wàllu communication surtout bëgg a communiquer nit ñi ne kii majnun la. waaw dafa dof. waaw. <laughs> informé wu li muy wax bu leen ci tenir compte. jeex na. Hmm? sunu ba ne ko maa antum bi ni'mati rabbikum majnun. Hmm. waaw li ñuy wax nekkut. <laughs> waaw est dem na ba ci biir oustaz mu mel ne xuloo na ci xuloo bu métti nag. waaw. man wala tutix kulla xallaafin mahin yooyu. Eh, foofu daa mel ne yaramam daa tàng. waaw ka gënoon a ka gënoon a xër ca yëf ya. <laughs> la yàlla lay tontu. maanaam bi ñuy jabalu si yonent bi al Mustafa. waaw sallallahu alayhi wa sallam ku ci nekk kii wut loo ko loo loo ko tafal. Mhm. ka ca gënoon a ëppal. ka ca gënoon a ëppal naan innoo fakkara wa xaddara. fa xucc mhm. la kay fa xaddar fu ma xucc la kay fa xaddar. waaw kooka la sunu borom tontu na. na ko na ko ma jàpp la. xaaral ma jàpp la <laughs> daan na yonent bi bu ko topp. Mhm. bu ko topp mooy doo du doo nawleem. Mhm. waaw ëppale ko sa bopp. ëppale ko sa bopp. allahu te loolu tamit am te am ci mpénc. Mhm. Mhm. am na yooyu nit ki moo koy ëppale boppam. mu ne ko ëppaleel sa bopp kii. kan mu ne xallaaf. mahin. hammaas. masha bi namim. mannaa'i lil xayr. wallaay mu'tad. wallaay athiim. wallaay utullim. ba'da dalika zanim. ndeysaan bu ko topp. kon doo nawleem doo nawleem mos waaw doo nawleem yow mi nga xam ne wa innaka laa laa xuluqin azim mhm. moom lii nekk ci jukkoom mhm. mu ne bu ko topp mu leen a sànneendoo ndax sa mbagg ak mbaggam tolloowul masha Allah jërëjëf laaj bi na solo mbokk mi daa bokk asalaamaaleykum aleykum salaam bismillah waaw maa ngi wootee waa Tiwaawan macha allah. ñu dugg ci nga yaa biir wàññi rajo boobu wàññi rajo bi te wax. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. bisimilah bisimilah waaleykum salaam. waaw sëñ Bakh si la suñu sa mbokk daam Samb la. waaw kay Samb naka waati waawoon. waaw ñu ngi fa ngi fi yow xam naa sant bi moo xaw a <laughs> baax nga macha allah. jërëjëf Samb jërëjëf. nuyu Saas bu baax a baax a baax a baax. alhamdulilah alhamdulilah. kontaan ñu génnoon sànq. jërëjëf. ci teewal si sunu kilifa sunu sang Cheikh Mouhamadou Moussa Wade. jërëjëf jërëjëf. préparé gàmmu gi. Mhm. ci à sa manière ndax ñun amuñu ku dul guddi yonent bi salaay salaam mhm. kon bu fi maam si Ahmad Tidiane Al Maktoum daan toog mhm. dafa gàmmoo euh, ba bàyyi si doomam jooju nga xam ni kenn la ci yéen mhm. taxaw fa taxawaay bi mu taxaw ñun dañ ko rafetlu ñooñu ne ñooñu ñu ko rafet ndax xam naa ni euh, dimanche bi passé ñun ñu dëkk Tivaouane ak li war ak tund yi ba Dakar fu ne ñëw nañ fa à la course. Hmm. macha allah defar nañ ko defar bu mucc ayib. ndeysaan. ci taxawaay bu gaaw daal loo xamante ne di ñaanal képp ko fa def saw te dara rek yàlla na yàlla defal la ko xéwal bu mag. ci hmm. barke góor ga fa daal toog ci barke maam Seydi Hadji Malick. amiin amiin. te bis bi ndax sa Alioune moom kenn mënu ko fay ndax xam ne daal mi ngi ci xolu ni ñi moom. ñu hmm. ci xolu képp almustarchidin wa société yi sa Alioune Sall mi ngi est-ce que ndax bu sëriñ bi waxee bu tudd ko ñu ñi apprécier rek nga xam ne. dëgg la de. macha allah macha allah ñu ngi lay sant bu mhm. baax a baax a baax. Mhm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nañu. macha allah ci yëpp rek. jërëjëf Samb jërëjëf. sa dugg bi am na solo te kàddu yi itam rafet na lool oustaz ñu ngi koy jaajëfal waaw ñoo ngi koy jaajëfal kat di jaajëfal mboolem mustarchiduuna yi di jaajëfal mboolem mustarchidaat yi di teg nuyoo bi ci loxol al murshid mm-hmm. mbokk mi ngi tudd moor Diop ma nga fële ca Brésil sëñ Mbàkke di ànd ak ñun jotaay bi ñu ngi koy jaajëfal baax sëñ Mor moomu te di ko bégee mbokk mi jaar ci albidaayatu arobas yahoo point fr oustaz mm-hmm. mooy Abdou Assis Ndiaye asalim siis mm-hmm. nee na dafa bëggoon a dugal doomam daal internat ngir mu jàng alxuraan ba mokkal ko bi mu nekkee ci waajtaay wi faf nag euh, magam jël xale ya inscrite leen école te waxu ceeg moom mm-hmm. mu bëgg xam ba xam ban conseil nga koy jox conseil ma ko jox de mooy mag ji dëgg la mm-hmm. mooy magam mm-hmm. waaye nag ay doomam duñ ko laaj magam ëllëg xu am fusakum wa ahlikum naara waxuñ ko magam ci doomam moom magam it na bàyyi xel ci loolu ñu waxtaan ci ku ci nekk fi nga bëgg a dugal say doom te sintu ca ëllëg mu niiru ko nga bëgg mu niiru ko ñu bàyyi ko muy dugal foofee ay doomam loolu rek la tubarkàlla. wa mhm. shukran. macha allah ñu jaajëfal ko bu baax ci laajam bu am solo boobu asala kooku génn na eh, jéggalu ko mbokk mi ci topp mooy Abdou Dem mooy tax ki njëkk a bind ci email bi. Mhm. waaye moom dafa wax ne mi ngi siyaar. di rafetlu waxtaan wi di xam le ne daal li nga ko xamal ci diineem bari na lool. loolu la indi ay sant ak yi ñaan. ndeysaan xanaa ñu bokk ñun ñëpp rek sant suñu borom subhanahu wa taala Euh, ñaan ko mu defal ñu tawfiix teñ bàncee ba bàkkoo ko tiitaru mhm. ndax sëriñ Cheikh ne na netti wax jàmbur jërul kaalaw wallaay am na ko nekk nii euh, asalaamaaleykum waaleykum salaam bismillah waaw yaaram jërëjëf jërëjëf alxaaji yusufa ngiraan daaru salaam melo alxaaji yusufa ñoo ngi siyaar baax ngiraan jàmm rek kay alhamdulilah tubarkàlla Mm-hmm. waaw dama ko déggoon benn dëkk bi ñu wax melax bu ma jege lool. ndeysaan dégg daw dégg ñu ne dafa demoon. waaw woon naa ko sonn sax waaye jëruma ko woon a jot. ndeysaan dégg naa dafa am ñaar ñu ko waaj dégg laa ko doon laaj. d'accord. waaw sëñ Malick Ndiaye nag ci Espagne bi ñu bu baax di leen ziar. jërëjëf ñu ngi koy fay bu baax a baax jërëjëf sukran alaaji Yusufa Ngiraan Daaru Salaam Melax. ñu ngi koy nuyu baax a baax mbokk mi ngi tudd Moustapha Syll ma ca France di ànd ak ñun jotaay bi. Moustapha ñu ngi koy nuyu di nuyu Aji Dooro Pam Ndiogo soxna Ndey Kamara. Mhm. mbokk mi di Aji Yusufa Ngiraan Oustaz ca Daaru Salaam Melax wala ca Melax nee na da la fa doon dégg. waaw ak déggandéem ne da nga am daara joo fay def. wax na dëgg de ñëw naa fa de fekk fa fekk si fa sunu mbokk euh, Maam Mbay. Mhm. Maam Mbay. Mhm. Euh, ñëwoon ca daaraam ja. doon joxe kàddu ñu ubbi ko. Mhm. ubbi nañ ko macha allah ca melax. Mhm. Eh, ab internat la boo xam ne bii fa lañ ko ubbi. Mhm. kon wax na dëgg ñëw naa fa yendu naa fa. Eh, comme nag miinu ma pe tunduwaag yooyu. damaa jëloon nuyoo ba rek tax teg ca loxol imaam Fadilou taal comme moo ñu gën a xam mu nuyu leen. macha allah <laughs> waaye ñëwoon naa fa wax dëgg kay. tubaarkàlla tubaarkàlla ñu jaajëfal ko bu baax xaar keneen ci ginnaawam bu dee egsi gut wala si na. egsi na kon ñu jël ko asalaamaaleykum. allo. waaw bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. dañ baax si la ngeen def. ñoo ngi sant bu baax. bàyyi ngeen si jàmm baax. jàmm rek kay. nuyul ma ko soppam moo ko bu baax a baax. mi ngi lay fay bu baax a baax. chaque alxames dem na di déglu si heure bi heure bu commencé tey ñi sama rajo dafa yàq ma jënd ay kat pour déglu leen rek. Mhm, ndeysaan. waaw non dama si oustaz Sall sopp naa leen lool lool lool lool. jërëjëf jërëjëf bëgg naa ko tamit ak yow ak yow sëñ Mbacke si la. ndeysaan waaw di taximaan laa nag maa ngi tudd Moussa Sall. Moussa Sall jërëjëf waaw chaque chaque alxames dama leen di dem leen di déglu moom. ah kay Sall ak loo mën a def loo mën a def moom. Hmm. Ah, dama koy jaral moom. ndeysaan ndeysaan. Eh. yàlla na gën a yàgg. amiin. jërëjëf Sall ñu ngi koy jaajëfal baax ab Sall leen la Oustaz waaye indi na ay duggam ak i waxtaanam. mbokk bi mbokk mi ngi tudd maam Roqaya Ba ma nga fële ca Italie sœur la ci maam Kiwe Ba Ndiaye. Mhm. nee na mi nga ànd ak ñun jotaay bi. ñu ngi koy nuyu ak Abdoul Aziz ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. te di ko bégee mi mhm. euh, nu joona ba teg ñaar fukki timir ak juróom-ñeent euh, oustaz mbokk mi jaaraat ci albidaaya waaw ñoo jël kële di fëgg mhm. moom day euh, ginnaaw bi mu indee ay nuyoom jot wax aw turam mhm. neen daf bëgg nga wax ko daal ci ban tariixa nga bokk nee na oustaz Alioune Sall ci ban tariixa la bokk maa ngi bokk ci tariixa bi nga xam ne mooy tariixa jullit waaw ci boobu laa bokk jullit yëpp wax ashadu an laa ilaaha wa ashadu anna muhammadan rasulullah ca laa bokk maa ngi koy bëgg baax a baax ci laajam ba am solo boobu jërëjëf mm. ndeysaan nee na beneen bi ci topp mooy dafa bëggoon a xam ba xam ndax Oustaz Alioune Sall daf daan futbal ak bu dee daf daan futbal ban poste la doon football waaw ah, laaj na laaj ba am solo <laughs> ndax dafa daan football waaw mm-hmm. dafa daan football footballul nag ci futbal yu kawe yaa kawe waaw sëñ Mbàkke mm-hmm. footballul ci futbal yu kawe yaa kawe kawe mm-hmm. waaye doon na futbal nag léegi ban poste la woon football oustaz Alioune Sall ab ab neuf la woon. dugal kët la woon boo xam ne <laughs> eh, ci yooyu la nekkoon waaw ñu ngi koy bëggee lool ci laaj mbaam solo bi. Mhm. jërëjëf Oustaz ñu ngi koy jaajëfal baax mbokk mi ci topp di Abdourahmane Wan étudiant fële ca France nee daloon da doon laaj ci wàllu prêt bancaire ndax nit daal dafa am foo xam ne dafay toll Oustaz ba loru lool ñi may ko mu def pere wala déet. Euh, bu fekkee daal. nit ki dafa xëyoon tey amul lum lekk mhm. nga xam ne bu lekkut mën naa loru keroog may nañ ko mu mën a lebe mu lebe ko mhm. lu dul loolu may ñu ko mhm. ndax leb di fay fay lu ëpp la nga leboon loolu ribaa la balañ laa may na nga sañ ko lekk mooy tey amuloo lekk lu dul medd mënoo ko lekk su boobaa médd ma mooy mooy mooy tekki euh, ribaa booba nga xam ne mooy ca leb ga d'accord waaye lu loolu may ñu ko nit mhm. mm-hmm. nee na su fekkee nit ki dafa bëgg a leb peut-être pour takk jabar wala pour yóbbu yaayam màkk wala moom ci boppam mu dem màkk ndax loolu mën naa nekk yóbbu sa yaay màkka du du du du du du du du ñàkk ndax sa yaay mhm. mënu wuta dem kon gannaaw yaa ngi leb mhm. yóbbu sa bopp màkk it mënu koo dem ndax gannaaw yaa ngi leb waaw ñaar yëpp benn benn benn du ci noonu kii dem màkk mooy man istata ilay sabila mooy ko ko man waaw ginnaaw yaa ngay lebi nag mënoo ko waaw dëgg la te itam leb dem far des fa ay bor toppal ba faaw <laughs> te ko faatu ayal bor sunu yonent ba du la jullee <laughs> te comme wut mu ngi noonu daal moo tax mu ne faatu ci yoonu yàlla mën naa effacer lépp ba mu des ay bor. Mhm. ba ci Koraan. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax tey rafetlu duggam bi man ngeen ñoo dab yéen it ci 88 628 98 98 33 vingt 22 33 bu dee ñi nekk bitim réew. Euh, keneen ki ci topp oustaz moom itam indi na ab laajam jaarale ko ci email bii di albidaayatu arobas yahoo point fr. Mhm. Euh, moom itam bindut aw turam waaye ma ngay wax kay Mansour Lam la tudd nekk fële ci Argentine. Mhm. Euh, indi na ab laajam ci suuratu yaasin euh, aaya 60 lay tollool mm-hmm. alam ahad ilaykum ya bani aadama an laa taxbudu shaytaana innahu lakum aduwwun mubin mm-hmm. jërëjëf laaj bi am na solo lool mm-hmm. sunu borom subhaanahu wa taala dafay wax ci suuratu yaasin yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon ne bu leen jaamu saay-saay bi alam ahad ilaykum yaa bani aadama laa taxbudu shaytaan maanaam sunu borom ne loolu waxoon naa leen ko wallaay wallaay ndax dañoo yow yow xiyam sëñ Mbàkke seytaane woote meeting waaw mboolem camarade de parti yi fekk ko ci meeting ba meeting ba nag ci sawar la nekk mu samp ab min baram bu mag taxaw ci nag di wax ak nit ñi waaw inna laa waadakum waadal xaq wa waadtukum fa axlaftukum mm-hmm. fala taloomoo nii wa luumu anfusakum mm-hmm. wax leen wax yu ñagas quoi mm-hmm. nit ñi di màttooka loolu ñu def suñu borom nag ne leen a ahad ilaykum ya bani adama ala taabudu cheytaan mhm. lii waxoon naa leen ko innahu lakum adu mubin mhm. waxoon naa leen ko mhm. wa an abuduni waxoon naa leen ko hada siratu mustaqim waxoon naa leen ko wa laqad adala minkum jibilan kathira mbooloo mi yëpp jenn waa ji dugal leen fii afala taaxiloon wallaay wa shukran ci laajam ba solo vraiment ñu jaajëfal ko baax baax <laughs> laaj bi am na solo lool te di ko ndokkeel beneen bi ci des ca suuratu sot la dem ak ñun nee na borom bi dafa wax ay xaala yu bari lu man juróom-ñaari xaala ci suuratu eh, suuratu saat waaw ah, d'accord wax eh, eh, la bëggoon xam naa ñu ñëwal ko ci mm-hmm. ndax xaw naa bari lool ak lu ko borom bi subhaanahu wa taala baa moo foofa ci boo demee xaala la mm-hmm. ak yu demee noonu oustaz waaw mm-hmm. ah, dëgg la suuratu saat sunu borom daf ciy la xewoon ca daawuda ak gaa ya doon ñëw pour mu àtte leen waaw ndax Daawuda suñu borom daf ko yónni ni mu yónnee Suleymaan Suleymaan àtte Daawuda àtte euh, Daawuda mooy baay ji Suleymaan mooy doom ji hmm. mu ne nag bi ñu ñëwee ci wàllu àtte Daawuda dafa àtte ndax bis boo xam ne bi amuñu ci amuñu ci audience mhm. ca la fekk ko ca kër ga mhm. ista sawarul mihrab mhm. waaw ñu ñëw fekk ko tey audience amul ñu ñëw nag bëgg la atte loolu indi ci moom tiit tiit mi nag tax jaxasoo mën naa am ba boo attee du demee noonu ndax waa ji dafa ñëw rek ne ko kii kat dafa jël samay samay samay samam xar te moom téeméeri xar yu manqué benn la am <laughs> bëgg lijjant ba jël sama xar mi boolee ko xaram mhm. loolu nag mbàkki àdduna koy def ba léegi mhm. gis nga nit ñi duñ fekk mbàkki si la amul kër ñu may ko kër mhm. dañuy fekk Salim Mbaye am ñetti kër ñu may ko geneen muy ñeent wallaay wallaay seetlu ko rek dañ maanaam sosub jàll duñ ko def dañuy fekkub jal ñu ciy sotti dañuy fekkub jal ñu ciy sotti rek <laughs> léegi nag saa bu ne xaala mooy waa ji wax na boo xeetee jeneen xaala mooy Daawuda wax na mhm. lu xaal yi bari bari ci ci biir <laughs> darsi beeg mhm. saar bi loolu rek lay tekki mhm. bu nee xaala waaja wax na bu nee xaala waaja tontu na baatu xaala mooy wax na rek lay tekki wa sukran ci laajam bu am solo bi macha allah jërëjëf oustaz jërëjëf ci tontu lu am solo loolu euh, ñooñu mooy ñu bind ci email bi di albidaayatu arobas yahoo point fr mi nu jot na ba teg fanweeri simili ak euh, juróom benn Ah? ma ne mbokk mi ci ñetteelu laajam ba tey ah, ci xamante ne moo bind ci email bi mhm. eh, nee na ndax eh, saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam eh, saxaaba boobu nga xam ne moo tuddoon Bilaal ibnu Rabaa nee na ndax amoon na doom wala déet jërëjëf ci laaj bu am solo bi Bilaal ibnu Rabaa daanaka li yonent bi dund lépp dencu doon soxna xamuñu xamaluñ ko woon soxna su mu denc ñu ñi xamaloon daal mi ngi woon ci mission bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mm-hmm. yonent bi génnee àdduna nag ci daayir la daal di fay jóge nag dem Saam ñibbi ba mu demee nag la fa denc soxna mm-hmm. waaye téere yi nag man jànguma ci fi ma ko jàng yëpp ne doomi Bilaal diw la tudd wala kii ca sëti Bilaal la bokk mm-hmm. loolu jànguñu ko ndax booba ne xaw naa dem ci magee waaw ba mu demee mooy leen ku ana kan moo mën a may Bilaal jabar may magam ji jabar te du séentu dara ci ñoom Mm-hmm. am góor gu ne ko man mm-hmm. daal di koy may jabar mm-hmm. léegi nag mu nekk fab diir euh, diir ba yàggut mu jël siwaat Madina di saare si yonent bi daanaka ci la jëlee euh, la ko génne àdduna ndax ba mu noddee ba ak su ci xaya ala sala yëg na fa yëg goo xam ne gii euh, la mu fa yëg daal xaw naa metti ci moom bu doon tey dañ naan dafa dafa crise wala dafa am malaise wala dafa tension ba monti et cetera wallahu taala alam wa shukran ci laaj bu am solo boobu allah jërëjëf oustaz ci tontu lu am solo lii auditeur boobu ñëw nañu dalal ko door a laaj yi asalaamaaleykum waaleykum salaam bismillah oustaz Mbacke na bro bro naa la de mais <laughs> maa leen raw yéen ñaan ñëpp laay ci loo nekk maa ngi nii rek toog leen déglu rek alhamdulilah toog sama télévision leen déglu jërëjëf jërëjëf non dama kontaan ci yéen. merci yéen da koy tax ma dugg bu bu sport yéen da koy tax may wax. ndeysaan te loolu barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. dama kontaan ci yéen. oustaz bu mu bokk man ci tarax boobu laa bokk bi mu bokk. ndeysaan. barke yonent bi foofu laa bokk. waaw billaahi wallaahi wa foofu laa bokk. gëm nañ la kay macha allah. waaw. Eh, xam naa nag football bi moom. Hmm. Mbaye Fall na ko Sega Sakho faana ko. <laughs> waaw ñaar ñooñu ñoom. Hmm. te xam naa ne xaritu Paa Bouba Diakhao hmm. loolu moom xam naa xam nga ku ma woo démb. Ah, ah. Ablaye Diaw. ndeysaan ponkal maa ngoog <laughs> wallaahi ponkal maa ngoog Abdoulaye Diop de moo démb ponkal maa ngoog wallaahi ndeysaan parce que yonent bi ponkal ah, maa ngoog naa la gëm naa la amin amin yéen ñëpp yàlla ngeen fi yàgg parce que yéen ñi moom ba leen fi jógee ah yàlla nga yàlla nga daal ngeen fi yàgg tëwër amiin loolu amin amin damaa leen ñëpp yàlla baax na jërëjëf jërëjëf sukkuraan boroo ngi noonu Oustaz ñu jaajëfal ko suñu waajooju di wootee fële ca Thiès. di daal mbokk mi di Alaaji Guèye ma nga fële ca Trento ci Italie di ànd ak ñun jataay bi. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu waa Trento yëpp mbokk mi daa bëgga bokk asalaamualeykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. bisimilah Oustaz. waaw yaaram. monsieur Kap Skirring. waaw naka waa Kap Skirring. sant yàlla. bisimilah. ñaari laaj yu laaj. ñaari laaj ko. waaye bu njëkk bi dama doon laaj bu dee liir lan lan la ñuy damay gis ay mag yi bu ñu fobee liir nii li ñuy jàng euh, ci nopp di tofale ci nopp. waaw. waaw ñaareel bi dama doon laaj moom en place dama doon jaay moom ku fàtte fu sëng léegi dama doon laaj loolu lan laa ko doon def. ku sëng dafa jënd sëng mu ñëw man fi may jaay dama man damay jaay. waaw. moom ku fàtte foofu sëng. sëng wala sëng. ah d' accord waaw. alcool quoi daanaka. waaw baax na waaw. Hmm. <laughs> waaw jërëjëf. Sukran ñu ngi koy jaajëfal baax te rafetluwaat duggam bu ama am solo boobu. di jaajëfal mbokk mi di Roger Diouf ma nga fële ca Paris di ànd ak ñun jotaay bi. ñu ngi koy jaajëfal baax a baax sëñ Roose eh, mbokk mi ngi noonu oustaz nee na kuy ñaanal xale ñaare ci bopp bi nii yor ko nee dafa gis ñu di ko def mu bëgg nga wax ko lan la ñuy wax. waaw ñun day sunu góor gi El Hadj Ndiaga Ndiaye ci njëriñ Touba Ndiaye. Hmm. dafa noo jàngaloon mu ne bu ñu la joxee liir bu góor hmm. da tafli ca bopp ba hmm. fa lamma raaynahu akbarnahu wa qataana aydiyahunna wa qulna haasha lillah maa hmm. haasha bashar in haada illa malakun karim ne bu ñu la joxee liir bu jigéen nga ne ya yaa maryamu inna la astafaaki wa taharaki wastafaaki ala la aalamiina ne ko yaa maryamu uqnuti rabbiki wasjudi warka'i ma'a raakiin ñu daal ñaar yu lan jàngaloon nañu ko alxaaj njaga njaay ci jari Tuubaa njaay rahmatullahi alayhi wa shukran macha allah jërëjëf oustaz ci tontu lu am solo loolu nee na moom borom bitig la buy jaay ma jël auditeur bi te ñëw ci asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah bismillah waaw maa ngi la Moustapha Badji Kaolack Moustapha bismillah waaw maa ngi leen di ndokkeel ci màggal bi ñu génn noonu ci ñaan tam ñu dugg ci jàmm ak jàmm. jërëjëf jërëjëf. dama doon laajte oustaz euh, suraatul fataxna inaa fataxna mu firil ma ko. d'accord. Euh, ak maa ngi ko benn émission bi ma seetaan noonu euh, Serigne Fall Cissé. Mhm. ndem si mhm, yàlla. yàlla mu ne bu bu ko. waxate oustaz na nga ko wax mu alim léegi ma bëggoon xam différence mu alim ak oustaz d' accord d' accord maa ngi nuyu auditeurs yi yëpp di leen ziar jërëjëf mm-hmm. jërëjëf Moustapha Badji ñu ngi koy nuyu tey lu dugam boobu le gendarme Mamour le gendarme Bouba Ba ak sunu mbokk mi Omar Ba Alaaji Omar Ba mu nga fële ca Caajaay di ànd ak ñun jotaay bi. Mm, jërëjëf ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp tey rafetlu dugub bi sëñ Boubacar ñoo ngi lay nuyu baax. Mm-hmm. Euh, mbokk mi duggoon léegi dafa wax ne waa ji dafa fàtte xeetu ñollu maanaam am sëng. ca mm-hmm. palaasam ba muy liggéeyee muy laaj nan la koy def. bu laajee borom gisu ko. Mm-hmm. mu tóor ko. waaye bu na laaj nag borom. bu gisee borom mu jox ko mu sëngam. ci génn ja mu tuur ko boo gisul nag mu tuur ko waaye du ko jël di ko maye déer bu ko jël bu mu ko maye bu mu ko jëfandikoo na tuur rek bu gisul borom mm-hmm. wa shukran ci laajëm ba am sala macha allah ñu ngi koy jaajëfal te di la jaajëfal baax Moustapha Badji nee na suratul fatxi la bëgg nga ñëwal ko ci eh, inna fataxnaa laka fatxan mubina li yaxfira laka allahu ma taxaddama min danbika wa ma taaqara wa yutimma nixmatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wallaay ndeysaan mm-hmm. suñ mbàkki ca fatxu makka wala ca sulxul xudaybiya mhm. la sunu borom waxoon kam yónni woon ne ko duutoo am defet mhm. inna fatax naa laka fatxan mubiina duutoo am defet mhm. te benn yoon la masa am lu ñu defet waaye lu xeex bay la te jeex jëlaat na xeex ba mu ne ko nag duutoo am defet dana ubbil naa la adduna si ubbil gu li ber biir naññ victoire rek ngay am te jégal naa la say bàkkaar lu jutu ngay nekk yonent bi nga nekk yonent di jégal naa la say bàkkaar defal na ko fa war bu ne waaw sama xew lépp danaa ko matale ci yow teg la ci yoonu teg la ci siraat mustaqim bi ñaan yow teg naa la ci yow wa shukran ci laajam bu am solo boobu masha allah ci tontu lu am solo li ñu jël auditeur bi te ñëw ci ñaareelu laajam bi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa

alam yaraw annahum yuftanuuna fi kulli aamin maratan aw marratayn d'accord summa laa yatuubuuna wala hum yuzakkaruun إذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد فعفى الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون بينان يمني في سورة الكهف آية 45 ويضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حفيظا الأولياء كان الله على كل شيء مقتدرا ñaari laa bëggoon wax si ñoom salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam sëñ Abdoulaye Pouy jërëjëf nuyu ñu waa Njaareem yëpp waaw euh, mbokk mi dëgg la Ibrahima Sow la tudd ma nga fële ca almamlakatul maghribiya di ànd ak ñun jotaay bi. ñu koy nuyu di nuyu waa Maroc euh, yëpp euh, Moustapha Badji desaloon na benn laaj oustaz. Mhm. nee na suñu waaje sëñ Fallou Cissé yàlla na ko yàlla yërëm. amiin nee dafa mas a dégg daal mu ne buñ la wax oustaz waaye nañ la wax muallim muy laaj lan moo wutale ñaari baat yooyu. waaw muallim mooy jàngalekat. Mhm. oustaz xëy na jàngalekat lay tekk waaye professeur lay tek mhm. baatu oustaz nag ci réew dafa dafa am lu muy tekki baatu muallim ci réew mi am lu muy tekki looloo tax mu naan wax ne bu leen ko wooye oustaz di leen koy muallim waaw looloo tax muy wax loolu kon àllim ci senegal baat bi moo moo fi moo fi xaw a tane oustaz waaw loolu rek la ci jubloon xam naa ne wa shukran ci laa bu am solo bi jërëjëf ñu jaajëfal ko ci tontu loo am solo yi sant la itam euh, ginnaaw bu mu ñu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom Abdoulaye Pouy di wootee ci njaareem nee na suratu tawba aaya 126 mm-hmm. euh, nee na mooy tollook fi borom bi di waxee naan awalaa yaraw na na annahum yuftanuuna fi kulli aamin marratan aw marratayni waaw waaw summa laa yatuubuuna wala hum yadakkaruun waaw waaw sunu borom de wax ci mm. woy sàggan yi nekk ci pénc mi mm-hmm. nee na. Hmm. bu nu seetlu woon ba nañ bàyyi càggante hmm. ak bàyyi tooñ ko. Hmm. ndax penc moo xam ne at mu jot lu gàtt gàtt nga am benn nattu bu rëy. léeg nga am ñaar natt yu rëy. ki lay nattu dafa bëgg nga gestu. dëgg boo toppoon ci ab muuma. mu tëlaa gestu. da ngay woote ka kobos ko sànni xeer. waaye boo ne ko wurru xeer ba mu ne dell ci koom da gestu. waaw kon bu boobaa kobos nga ko. bo <laughs> boobaa kobos nga ko. mu gestu. noonu nag la di wax ci pénc bi. Mm-hmm. léeg mu kobos ñu benn yoon léeg-léeg mu kobos ñu deux fois. Mm-hmm. deux fois yooyu nag war nañoo yee ba ñun ñëpp ñu gestu ba bañ ko gestoo mu ne lii laal di doy wala yoon we ngeen war a jaar. Mm-hmm. fi ngeen jaar du foofu. Mm-hmm. mooy sukkuraan ci laajam bu solo boobu. macha allah ci tontu lu am solo li oustaz jërëjëf ñu ngi ko ci jaajëfal te di la jaajëfal bu baax baax beneen bi ci topp ci suratul kahfi la dem ak ñun aaye 45. Mm-hmm. di fa borom bi di waxe naan wadrib lahum mathalan mathalal xayaati dunia kama in anzalnaahu min a faxtalata bihi nabatul ardi fa asbaha siman tasuru riya wa kaana allahu ala kulli waaw yàlla nee na mm. yonent ne mu ne ko léebalal gaa yi léebal leen léebu àdduna àdduna mi ngi mel ni ba tawee ba noppee ba ñax mi sax ci bu ñax mi saxee bañ jàpp ne léegi li duutul laxati day jékki-jékki mu lax jékki-jékki mu gooy jékki-jékki mu wow koŋ tasaruxu riyaaw ngelaw la ñëw daal di koy deme foofu daal di def ndànd fay-fay dara du fa nekk wa shukran ci laaj mbaam solo bi jërëjëf Oustaz ñu ngi koy jaajëfal te di la jaajëfal bu baax xaar keneen ci ginnaawam ci 88 628 98 98 egsi na asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah yaa Oustaz Mbacke Sylla. waaw yaaram. Euh, ñoo ngi nuyoo di ziar. jàmm rek alhamdulilah jàmm rek. yàlla yàlla na guddal fan yi. maa ngi woote Géejawaay. naka waa Géejawaay. ñoo ngi sant alhamdulilah. jàmm rek kay. waaw dafa am euh, ñaari laaj yu ma laaj ba mu nekk ñett. waaw li jiitu mooy boroom ki ñuy wax li ñuy wax borom ñaari tur yi. waaw góor jigéen. waaw góor jigéen waaw ñu jaar ci loolu. <laughs> waaw. ndax li waral ñu ne ko rob ci ay armeelu jullit. Mhm. moom bu fekkee ne moom jullit la woon sax waaye loolu la woon. Mhm. waaw lu waral loolu moom moo tax moom lay laaj ci si loolu njëkk euh, laaj bi njëkk bi. d'accord li ciy tegu mooy koo xam ne mu ngi nekk bitim réew. Mhm. mu bëgg a wët kayit. mu daal di dugal kayit yi te xam ne loolu la. Mhm. ndax loolu lislaam nangu na ko wala déedéet. d'accord euh, ñetteel bi mooy abdama lu ma bëgg ñu tekkil ma ko. Mhm. mooy allahuma yaa wa yaa kaasiyal fawti wa yaa kaasiyal isaama lahman baadal mawti. Mhm. atiq riqaabana min wa riqaaba abaa'ina wa jamil muslimin. moom la wax dëgg ñu tekkil ma ko. jërëjëf. leer na. waaw ñaari njëkk yi de leer na waaye ñaan gi moom taxul ma mën koo jàpp noonu. allahuma yaa samiya sawti. وعكاس الفوت وعكاس العظام لحما بعد الموت. d'accord. أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وجميع المسلمين. d' accord. jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Mhm. tey rafetlu duggam bu am solo boobu tey rafetlu kàddu yi. mbokk mi mu ngi tudd Omar Sarr ma nga fële ca Conakry di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax saar mbokk mi nee na Oustaz euh, loolu kooku borom jëf ju doyee di jooju ñu naan góor jigéen lu tax duñ ko denc ci armée li jullit. waaw parce que boo xasee nekk nekkatoo jullit. Mhm. boo xasee nekk. Mhm. nekkatoo jullit. ginnaaw nekkatoo jullit nag. Hmm. duñ la ci sa ah, duñ ko rob ci sa jullit yi loolu rek la. dëgg la. Hmm. macha allah beneen laaj bi mu ci toftal oustaz nee na ñaare tukkikat yi ñi dem bitim réew euh, léeg-léeg nit bëgg a am ay kayit wala yu demee noonu hmm, bu ko defee daal di wane ne moom daal góor jigéen la wala nangam la ndax am ay kayit loolu lu ci lislaam wax. xanaa tere ko rek. ndax loolu war la. gën ci sa diine la. ak jubadi la. waaw bëgg ay kayit dina dugal mukk ci wax dëgg. ndax su boobaa mën nga caa amee ay këyit di ca liggéey waaye bis boo màggee ba sa conscience waxtaan ak yow rek adduna tukki mm-hmm. bis boo amee annafsul lawaama rek adduna tukki kon nag yooyu boo ci yooyu kenn waru cee basé sa sa liggéey wax ne su ma waxut nangam du ma am ay kayit ëpp naa def wa mm-hmm. shukran ci laajam baam salaam jërëjëf ñaan gim ci teg nag nee na allahuma yaa samia sawti Eh, teg na ci yeneen waaye ma ngi ko daanele ci ahti riqaabana wa riqaa abaina minan naar waaw loolu de ñuy def euh, ñuy def xunóot mhm. bu ñu nekk ci taraawix ñoo koy wax mhm. ñoom sëday seeg ñi mel ni ñoom mhm. fi ñu koy jeexale mooy yàlla na nu goreel ñoog suñuy waajur ci sawara ahti riqaabana wa riqaaba abaina minan naar ko shukran ci laaj mbaam solo bi macha allah jërëjëf oustaz ñu jaajëfal ko xaar keneen ci ginnaawam ci 88 628 98 98. وعد ما كان في الأكوان يا سندي xaaj Mbàkke waaw jërëjëf oustaz ñu wee laale laaj yi mbokk yi bind ci email bi euh, en attendant kii dugg ci téléphone bi di ñëw mhm. mbokk mi mu ngi tudd Assane si euh, nekk ab étudiant fële ca France mhm. euh, nee na moom daal dafa bëgg nga wax ko ki nga xamante ne dafa war a jiite julli nit ñi maanaam ab imaam ci boppam mhm. yan critère moo war a daje ci moom mu door a war a mën a nekk am na solo am na solo critères yi mooy imaam daa war a man alxuraan bu noppee mu dégg fiq bu noppee mu maandu waaw mhm. bu noppee mu maandu ñett yi bu ko amee mhm. rek mat na ilimaan mhm. dégg fiq dégg alxuraan maandu ñii daal critères yi ci jiitu ci ak imaama yi ca la bokk ci des yëpp nag ay complémentaire la yu ci ñëw waaye ñett yu moom mooy cosaanu mbir yi wa shukran ci laajam ba am solo masha allah beneen laajam bi mu ci teg oustaz neen dafa am benn xaritam boo xam ne buy dugg ci oto Euh, daal wala muy lekk faw day tudd barkeb sëriñam am na sëriñ bu muy tudd daal bu toogee itam wala mu noppi jërëjëfe sëriñam boobu lay wax hmm. muy laaj ba xam loolu lan la ci lislaam wax waaw alayhi salaam daf ñoo jàngaloon ñam mi nga xam ne moom nga tiim nga ne bismillah hmm. boo ca noppee nga ne alhamdulilah loo cee teg na doon ko caa teg ndax ki la nga xam ne moo la jox depanse man hmm. nga ne ko jaajëf waaw ki nga xam ne moo joxe dépense bi nga lekk mën nga ne ko jaajëf waaye daal bismillah mooy tàmbali ba. Mm-hmm. alhamdulilah mooy jeexlu ba. wa shukran ci laaj maam solo bi. jërëjëf oustaz beneen bi ci des nee na lu diine wax ci li ñuy tuddee astrologie maanaam nit ki jël sa date de jël sa tur. Uh, maanaam xool ko daal am lu muy tombeel mu am yum lay wax ci yow lu mel ne sa biddiw nangam wala nangam neen loolu ci lislaam wax. waaw loolu mooy xam-xamu horoscope. Mm-hmm. xam-xamu horoscope gisaane la. moo tax lislaam da koy tere. xam-xamu horoscope gisaane la moo tax lislaam daf koy tere ndax nit kii dem ñu ne la vingt mars mu ne vingt mars nangam la nangam sa sa sa sens sens suivre nangam la ak nangam loola gisaane la li gisaane nag lislaam da ko dàq wa shukran ci laaj maam solo bi masha allah jërëjëf oustaz ci tontu la am solo loolu kii ci topp mooy ma Mamadou Khady ma Mamadou de laajam bi boobu daanañ ko laajante ca daara ja xaaral ma jël kii te ñëw mm-hmm. aleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. waaw Mbacke maa ngi jaar di ziar oustaz. waaw kay jërëjëf jërëjëf. maa ngi woote téléphone Abdou Salam. Abdou Salam na nga def. maa ngi sant bu baax a baax. jàmm rek alhamdulilah. sànq nag ñu ngi lay gaañ inaa fa tax naa sama xel dara ci Alaaji Moustapha Diouf. ndeysaan. ndeysaan moom la ko daan waxee bu weeru koor bi te sama xel foofu rek la dem ndeysaan ndeysaan loolu weesoo maa ngi laaj oustaz laxat jaa akum laa bëggoon mo firé laxat jaa akum d'accord waaw incha allah jërëjëf <laughs> jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax te rafet lu duggam boobu mbokk mi nga tudd Anta Diop ma nga fële ca Canada di ànd ak ñun jotaay bi ñu ngi koy nuyu moog waa Canada yëpp tey rafetlu ànd googu ci jotaay bi eh, jërëjëf oustaz mbokk mi de moom laxat jaakum la bëgg nga ñëwal ko ci moo jeexal suuratu Tawba laqad jaakum rasulum min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminina raufu rahim waaw sunu borom dana day day melal yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw jamonoom surtout jamono yi mhm. mu ne laqad jaakum dikkal na leen rasulun ab docteur min anfusikum bu jóge seen biir docteur bi nag azizun alayhi ma anittum li leen dala ko métti mhm. wut xaalis taxul mu ubbi clinique <laughs> waaw. ndeysaan. wut xaalis. taxul mu ubbi clinique. nga xam ne moom bu amee xaalis ci malaat bi su faatoog su faatu moo bokk yam déedéet. xarisuna mhm. aleykum ba sañoon leen ñëpp ngeen wër. bil muminina raofu rahim. dëgg la dafa yërëm dafa ñeewantu jullit yi. Mhm. ba du piqûre du opéré. Mhm. fa in tawallaw faqul xasbi yàlla bu ngeen fi bàyyi docteur bi nag bëgg fajoo feneen. na docteur bu ñibbisi moom bàyyi leen du ngeen faju ba mukk mhm. wa shukran ci laajum ba am solo masha jërëjëf ci tontu lu solo loolu mbokk mi daa bëgg a bokk moom it asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah bi waaw sang ngi ziar jàmm nga am yàlla bu wér masha allah alhamdulilah tubaarkàlla tubaarkàlla jërëjëf jërëjëf so man dama amoon ñaari laaj waaw bismillah bi mooy maanaam kër gi ma nekk hmm. dafa am jàkka ju nekk si biir kër gi hmm. mais jumaa ji ñuy jullee nag soriwu fi léegi ma doon laajte ndax mën naa jullee ci kër gi wala jumaa ji laa war a jullee ji bu ñu noddee. d'accord beneen laaj bi mooy. Hmm. jigéen bu tàggoog ca këram. Hmm. maanaam ñeent ñeenti weer yi muy muur noonu sax. xanaa ñett kay ah ñett. waaw waaw. Hmm. maanaam lan la ko ci diineen sant daal. ban comportement la war a yore. d'accord. voilà jërëjëf. sukran ñu ngi koy jaajëfal bu baax te rafet lu duggam bu am solo boobu. mbokk mi Jamil Guèye la tudd moo nga fële ca France euh, di ànd ak jotaay bi. Jamil ñu ngi lay nuyu di nuyu waa France yëpp mbokk mi nee këram gi mu nekk nekk fa dafa dend jàkk ji lool wala sax daa am jàkk ci biir kër far. ndax hmm. daa war a jullee ci kër gi wala day dem ci jàkk ji. bu ngant amut de nañ fay romb jàkk ji ci kër gi. Hmm. bu ngant amut nañ fay romb jàkk ci kër gi tey dem ca jàkk jële. Hmm. waaw Abdoulaye Moussa loolu la waxoon mu ne bu ñun ñëpp jullee suñuy kër kon ku jule jàkka ja mhm. te suñ ko defee woyof nañ sunna si yonent bi aleyhi salaatu salaam kon daal nañ fa bàyyi jàkk jëkkër ga bu ngànt amul mhm. bu ngànt amee nag ngànt moom ngànt lay tekki wa sukkuraan jërëjëf oustaz ci tontu lu am solo loolu beneen bi ci topp nee na jigéen ju tàqalikoo ak boroom këram nekk di jàpp iddaak yooyu euh, nan la war a doxale wala ndax sañees na koo ngoroom déet waaw ku ñu fase mhm. ngay jàpp idda jabari la fase nga li feeg idda jeexut ku am jëkkër la dañ koo fase waaye iddaam jeexagul kon mi ngi cib sëy kon lii comportement mu yëg ne rek mi ngi mu jeex waaw ko defee kenn du kenn du ko mën a takk ci diggante bi waaw bu fi jubóog jëkkëram du jar takkaat li fekk idda jeexul wa shukran masha allah jërëjëf ci tontu lu am solo loolu ñu jaajëfal ko baax taxaar keneen ma nga ne la di ñëw asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bisimilah sëñ Mbàkke maa ngi lay ziar waay yal na yàlla nangu siyaar man la Majee Mbay waaw koy Mbay na nga def sëñ Majee sant yàlla bu baax si la si la bi jàmm nga am <laughs> yàlla sall maa ngi nuyu la ziar <laughs> jërëjëf Mbay waa ñaari laaj rek benn laaj bi mooy uh-huh. euh, sama benn xarit moo doon tudd doomam léegi euh, soxna si bi moom mi ngi ci États-Unis uh-huh. moom mi ngi fii uh-huh. imaam bi bi doon tudd dafa nodd liqaam ak turu xarit bi yëpp téléphone la ko wax léegi ñu jël fee ñu jël téléphone dëppale ko ci nopp xarit bi pour mu waaw pour pour ñu tudd ko daal. d'accord léegi loolu li ci am wax parce que damay xaar comme nouvelle technologie la bu bu réseau bi tàggoon tey nu muy demee. par exemple. waaw oustaz ci ñëw léegi. Hmm. waaw waaw ñaareelu laaj bi. ngeen jégal ma. mooy dama bëggoon juste rek laaj ko est-ce que c'est euh, obligatoire jullit bi wut wati la wala déet wut bon wati wut sëriñ wala déet. Hmm. Euh, euh, ensuite mu wax ñu fan la ñu war a yem ak sëriñ bi ak nu ñu koy tànnee mu jàppale ñu. Hmm? bu njëkk bu mujj bi de rëcc na ma waaye xëy na oustaz jàpp nga ko. waaw incha allah. <laughs> Euh, euh, euh, lu mu wax ci bu mujj bi. xanaa rek al mbokk bi di Khalil Mar. waaw dafa la ca France. waaw kay Mar bu mujj bi daa wax ne. Hmm. nu ñuy tànneeb sëriñ. waaw nu ñuy tànneeb sëriñ waaw. Hmm. wasila ndax war naa nekk. ak sëriñ nu ñu koy tànnee. waaw. wa shukran macha allah jërëjëf beneen bi ci des nee na tudd ci wàllu téléphone ndax jamono ji day doxee noonu léeg-léeg muy laaj ñu ci lislaam wax. li ci lislaam wax mooy. jël téléphone teg ca nopp xale ba. du lu kenn xam. waaw nan la ñu war a tuddee bu fekkee. xale bi ca bitim réew ñun ñu nekk fii. xam nga bitim réew damaa defe ne xanaa papa ja. Hmm. wala yaay ja. Hmm. wala najaay ja. wala dëkkandoo yi am na ku mën a nodd am déet ñu bëgg koo envoyé ak noddu fii hmm. ilaa ilaa France. wa ilaa Amérique ci noddu ca nopp ya. kon ñooñ foofa rek. ku mën a xam mën a nodd rek mën ngaa tudd. dëgg su loolu amul foofa nag boo amul foofa jarul di ko di ko envoyé ay li xaam ak nodd mhm. fi ñu toog nan jàng fàtte wutal koo tur mhm. jàmm na ñooy waaye nag teg teg ab téléphone ca nopp ba nag mhm. di noddu. Hmm. a ah, loolu bu ci jëlee ay rayon yu dem ca boobaa ak ñoom seen yooyu ñoo ko ñoo ko tooñ. dëgg la waaw. macha allah mooy mën naa ñàkk de xanaa. mën naa ñàkk lool. macha allah ñu jaajëfal ko bu baax une heure jot na ñu xaar keneen ci ginnaawam bu ñëwee ñu dalal ko. xanaa buñ ko ñëwee tontu ci laajam beneen bu ñaaral bi. waaw mooy ban. mooy ndax wasila. nit war na ko eh, ndax nit war naa am wasila oustaz ak lan mooy doon critères yi nit ki. war na ko wasila mu ngoog suñ bàkkee. macha allah waaw suñu borom mënu wutloo wasila. Mhm. yaay li seen amunu hmm. ittaqullaha wabtaqu ilayhi alwasila gis nga lim jaxasi boobu lépp yaayu li na amanu kon nit ki jóge na ci islaam mu ngi ci imaan ci imaan mm-hmm. bi mu ñëw ci imaan nag la ko wax ne léegi da mm-hmm. nga ca boole taqwa mm-hmm. am na islaam am na imaan am na taqwa mu des benn nag mooy àgg ca yàlla àgg ca yàlla nag da ngay wut ku la yóbbu waaw dëgg la àgg ci yàlla. da ngay wut ku la yóbbu waaye dangay ngay bokk ci al eh, ci daayiratul imaan ba noppi. waaw mhm. da da ngay bokk ci daayiratul imaan ba noppi. daa mhm. ko ci daayiratul muttaqina ba noppi. Mhm. door a wut na ku la yóbbu door soo jiitalee ñett yee tànn ku dana yomb. soo jiitalul ñett yi nag doo tànn ku la yóbbu da ngay tànn ku la neex. te tànn ku la neex taxut a dem. dëgg la. mën ngaa fekk oto bu rafet ma nga ca gaaras ba. waaye dimut mhm. ku dem moteur ba nekku ci mhm. ku dem pënu yo nangam mhm. la waa ji defoon ndaw ku yi rek màggal gi jot rek mu naan ay Touba Touba tubaa tubaa gars yi dugg ci oto bi ndek oto 1924 ba léegi dëwut mu encaissé leen ne fes waaw jaar na ci yéen kaw jeex na macha allah léegi nag wasiila moomu mën naa nekk jëf ju baax mën naa nekkub sëriñ waaw jëf ju baax waaw mën naa nekk jëf ju baax mën naa nekkub sëriñ waaw incha allah wallahu taala alam wa shukran jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk mi ci dugam bu am solo boobu ñu jaajëfal ko bu baax a baax وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق كلهم واذن لصحبي صلاه من tabaarakalla xaj Bakke waaw kay jërëjëf oustaz laaju mbokk mi ma doon wax léegi te mu xoromu lool mm-hmm. ñaare daal dañ ko dégg sax ñu koy wax nee daal koo xamante ne dafa gumba tëx mm. na nan lañ koy waxee ne ko sa bàjjen dafa faatu waaw waaw loolu xaw ma ko wax dëgg yàlla <laughs> ndax sunu borom daa ne kooku mm. foofu laa yarji'uuna waaw kooku sax dul xam bàjjen ak imaam di waaw kooku foofu laa yarji'uuna mm-hmm. ginnaaw nag foofu laa yarji'uuna la ci sunu borom wax mm. nit loolu doonga lañ cey wax waaw dëgg yàlla xamuñu nu ko wax sa bàjjen dee na xamuñ ni nga xasee ay dena ndeysaan wa sukran <laughs> jërëjëf kii nee na ndax mënees naa jàpp ci biir salle de bain wala déet waaw waaw mënees naa jàpp ci biir salle de bain rawatina salle de bain yi xew léegi mhm. nga xam ne moom daanaka moom néeg bi sorewuñu mhm. wa sukran jërëjëf loolu ñooñu mooy ñi jotoon jaarale seen ay laaj ci email bi di albidaayatu arobas yaaw am na solo men mbokk ngi nii ñu jël ko kon bi ineer jotee ba teg ñetti simili asalaamaaleykum aleykum mbokk mi la duggoon a faax Ablaye Touré. Ablaye waaw bisimilah. aywa eh, dafa am benn laaj boo xam ne kër gi démb dama doon julli takkusaan. Mm-hmm. ma fàtte jàng faatee ci kaw. Mm-hmm. ma paree dama ko fàtte. Mm-hmm. ma demee ba julli timis nag ba ñu am benn rakk. ci mm. sama xel door a dem ci si boobu. su jotub lan la woon. ah. neen daa jàng faari d' accord d' accord kon da ngaa yokk na waaw si baax na. d' accord bu fàtt bu waroon si jot ba pare d' accord ko fàttaliku. jërëjëf. lan baax na. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax te rafet lu duggaatam bu am boobu. mbokk mi nga tudd Ibrahima Ndiaye ma nga fële ca Géedi ca Italie tey ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf moom ne njuumteem lii ci julli tàkkusaan ga la woon Oustaz da caa yokk waaye ma ko fàttalikoo ba muy julli timis ci gannaaw imaam nu muy def ni muy def rek mooy su jullee ba noppi hmm. mu sujjóot sujjóotu baada ba le hmm. ndax sujjóotu baada wala baada xi wala baada aamin lañ waxoon hmm. fii ba at jàpp ñaari at sujjóotu baada du yàqu saa bu saxal demee rek kàbbaar la àgg suuf sujjóot si ñaari sujjóot taayi sëlmal ba sukkuraan incha allah ñu jaajëfal ko te sant la it mbokk mi daa bëgg a bokk bu agsee ñu dalal ko aywa mawlaaya واغفر إلهي لكل المسلمين بما amiin mbokk bi daa bëgg bokk asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw waaw maa ko woote woon sànq di laajte maanaam jigéen bu tàggoog jëkkëram maanaam jigéen bu jëkkëram gaañu laa bëgg a wax waaw waaw maanaam ñeenti ñeenti weer yooyu muy toog mu muuraay boobu muy muur waaw léegi man damay laajte foofu ban comportement la ko diineem sant d'accord merci waaw jërëjëf ñu ngi koy jaajëfalaat baax ci duggaatam boobu booboo leeral yi mu indi waat jaajëfal mbokk mi di Omarul Farouk Diouf mu ngi hmm. fële ci almamlakatul arabia saoudia di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf oustaz nee na jigéen juy iddawu te fekk jëkkëram daa faatu maanaam tëñ ji hmm. mu ne nan la war a doxale jërëjëf ak am solo hmm. ndax penc mi day pencum dox daje te ku ne lay culture ci sa dëkk moom ngay indi loolu kon am na solo mooy kuy tëñ ji bu tànk bu gàttanu tànk na gën a gàtt bu gàtteew làmmiñ na gën a gàtt loolu rek la bu gàttoonu tànk na tànk ba gën a gàtt bu gàttoonu làmmiñ na làmmiñ yoo gën a gàtt loolu rek la nag ci des yëpp dañ ko see jaxase ñoom nogo yag ku ñëw ne la defal nangam bala defoo nangam donc yi rek lañ ko ci sant wallahu taala alam wa shukran jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax tey rafet lu duggam bu am solo boobu di xaar keneen ci ginnaaw فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا الحاج Doro Sylla ci Paris nelawagul mi nga ànd ak ñun jotaay bi siini mbuub ma nga ci Italie moom tam di ànd ak ñun jotaay bi Ibrahima ñaa ci Vigo la nekk ca Espagne di ànd ak ñun jotaay bi am na ko bëgg a bokk xaj Mbàkke ne ko ñu dalal ko rek asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw koy Jóob waaw waaw kookuy laaj naan ku tax guma loo Hmm. kooku bu koy laaj na ko dem ci waa ñi yor centre bi ñi yar ñooñu. Hmm. kon xëy na ñu xam ko waaye kilifa boo koy laaj danga koy laaj ba am fulla. <laughs> waaw sa moom xamul loolu. dëgg la xamul loolu ñu dem ci ñi ñu laaj ko. fii moom jërëjëf Diop. <laughs> jërëjëf mbokk mi bind laaj bi dégg na la <laughs> tuwarkal la. mbokk mi Khady Dieng la tudd ci Ali Imran la nekk nee na mi ngi am ak ñun jotaay bi. ñu ngi koy jaajëfal baax a baax Dieng Khady ak euh, mboolem soxna yooyu di jànge foofu ci daara Ali Imran une jot na ba tey juróom-ñaari simili. الأنبياء وجميع الرسل ما ذكرا soxna Ndak Guèye mu nga fële ci Tiwaawoon Pël tubarkalla abi Guèye ci Rufisque la nekk di ànd jotaay bi Baye Thiam mi ngi fi ci cité Bastos di ànd ak ñoom jotaay bi ami Kolle Thiam ci asalam la nekk Sofiyatu Diouk nekk fële ca Malika plage Mara Touré wala Marie Touré ci Ali Imran madame Badiane nekk ci usine benn tali Serigne Sidi Bousso nekk fële ca Moussa ba ca Mbacké madame Sala Dieng ci Ali Imran Asmaki kii dafa bëgg a bokk kon ñu dalal ko asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatu. Pam Ndiogo Sall. lay ziare. jàmm rek ñu ngi sant bu baax a baax alhamdulilah. naka di ko jërëjëf jërëjëf mi ngi lay fay. di nuyu suñu xaritoole El Hadj ngi lay fay moom it tey de ma nga Cees moo tax ñëwut. ma nga Thiès ah, ngi lay fay baax a baax. ñu ngi nuyu al Assane ko dégg. waaw ndeysaan xam naa mi ngi ci jàmm jombut. Mm-hmm. waaw jombul mi ci jàmm ñu ngi koy ziare moom allah. maa ngi nuyu sama goro yi tamit. jërëjëf ndeysaan. di leen ziare di ndok ndokkale ci weeru gàmmu bi ñu nekk. Ah, ndeysaan. di nuyu sa xarit DG Ousmane Gueye bu école police. koy nuyu baax baax Gueye DG. Ah, waaw ak euh, ñu xarit. El Hadj Pape Mor Diaw suñu président. Mm, ñu koy nuyu bu baax. président de Samba Diaspora. jërëjëf jërëjëf ndeysaan. ñoom El Hadj Dora ñoom El Hadj Asmali Seye ñëpp ak Naar Ndiaye. Mhm, ndeysaan. El Hadj Babacar. Mhm. ñoom Soxna Ndeye Camara ak ñoom Soxna Mata Seck ak ñoom Dioufo Adja Dioufo Fisofo. Mhm. ak ñëpp rek ñu leen ziar ñoo ñëw ak ñoom Rose Diouf ak El Hadj suñu fàttee tamit sama eh, mag yi Adja Ndeye Dramé mm-hmm. Adja Mariama Dramé ak Mali Dramé tamit ñu leen di jaay ñu ma ak Imam El Hadj Mballo Sall mm-hmm. allah ñu tamit eh, di jàllale seen nuyoo imaamu ñetti mbaar yooyu ci seen soppe ngi leen nuyu baax a baax ñoom it. waaw imaam Ibou Diané da tudd démb ñu koy siyaare moom it di ndokkale ko ci doom jooju mu ko tuddee allah. Ah, ak uh, oustaz Daouda Diallo imaam Jamil Kayre imaam Dame Kayre imaam Cheikhou Kayre. Mhm. ah laaj bi tey nag lan la woon dama ne nit ki nga xamante ni. Hmm. moo ko soxnaam soxna si daf ko tongu ne ci weeru koor bi ba ci tabaski bi ba ci tamxarit bi. Hmm. ah moom nag suñu bisu comme niñ koy farale di def su weer bisu korite jote wala tabaski ku góor ki dina ko baalu ah, xam ne ko baal maa daal. Hmm. ah mu ne ko baal naa la waaye moom it day yaakaar ne après loolu dina dina dina wàcc daal. waaw. mais neen suñu jógee ci rek doon si day toog day teewaat. Eh, eh, day continué ma waaw. <laughs> waaw nee na bi faa mu woo ko nag ne ko lan mooy mar bi laa bëgg a xamal lan la mun ne ko man daal seet naa ba xam daal sama xol daal mënut a bokk ne comme da nga takk ñaareel daal mënu ma ko digérer daal. ci yàlla. waaw léegi daal léegi loolu lay laaj mu ne ndax ko ku naka la war a mën a def ak moom nag. Mhm. lan moo ci lan la ko ci imaam li déggal ndax da koy bàyyi wala lu muy def daal. Mhm. waaw loolu moo doon laajte bi maa ngi ñëpp di siyaare ñëpp daal. jërëjëf macha allah jërëjëf El Pam Ndiogou ñu ngi koy bëggee oustaz te rafet lu duggam bu am solo. waaw waaw dégg mbokk bi di saa si mbuub ma nga ca xombal di ànd ak ñun jotaay bi. ak Mamor Dia ci Padoa. ñu ngi koy nuyu baax a baax sëñ Mamor jërëjëf Hadj paam Ndiogou mi ngi noonu oustaz. Mhm. ginnaaw nuyoom yi ak jotali gi ndeysaan eh, jotli gu am solo gi nee na mbokk mi de daa am kum tongool tongo gi xaw naa yàgg lool. Hmm. saa yu it ñëwee ndeysaan mu ñëw ne ko baal ma mu ne ko baal naa la mu yaakaar ne jeex na rek mu ne ajaat gardam. Hmm. nee na nag ba mu ñëwee di ci wax ak moom mu ne ko moom daal da loolu waaye sama xol moo la mënta supporter ndax eh, li nga takk ñaareel. Hmm. léegi nag loolu lu ci lislaam wax. xanaa ñu waxtaan ndànk mu yewi ko. mu waxtaan ndànk. mu yewi ko mu ndax li kii def du luñ tere. lu ñu mayee la. takk nga jabar. yëg nga ne da ngaa war a ñaar nga ñaareel. Mm-hmm. kenn mënu ko dékku ngeen waxtaan ndànk nga yewi ko. Mm-hmm. la loolu rek lay tekki. Mm-hmm. waaye duñ yonent bi nee na kenn du wax jigéen fasel kee te takk ma man. wala fasel kee te yor ma man déedéet. comme nag takk nga ba noppi yaa ngi ñaar. kenn ki ne na munta muñ toog hmm. yeewi ko mu ñibbi jamono ñooy jamono ñooy wallaay waaw wallaay lu nu yàlla dimbali amiin yaa rabbi sukran ci laajam ba am solo sukran oustaz ci tontu lu am solo lii ne jot na ba teg fukki simili ak ñaar eh, ñu jël keneen ci ginnaawam bu ñëwee ñu dalal ko أنتم على الصورة صلي وسلم دائما أبدا على soxna Aïssa Ba mi ngi ci Grand Mbaaw di ànd ak ñun jotaay bi madame Dia euh, tabarkalla Ami Ndiaye ma nga fële ca nooto di ànd ak ñun jotaay bi yaqribuna biha ahlu wal ardina aw yadhara raxayatu gaa ci wakaam la nekk nee na moom tam ci ñi la lugul bokk ak njaay Diop fële ca Mbarigo السماوات والأرض مع جبل والفرش والعرش mhm, kii nee na ñu dalal ko asalaamaaleykum aleykum salaam bisimilah oustaz ñu ngi leen di ziar jërëjëf yàlla na yàlla nangu siyaar naka yi tey ñu ngi sant bu baax a baax alhamdulilah baarikaala mbaa lépp jàmm jàmm rek kay alhamdulilah waa kii de seen soppe la bu dëkk ba njaareem waaw naka waa njaareem ñoo ngi rek ñu koy wax Jili Ñang. sëñ Jili na nga def ñaŋ ñu bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf. Oh. allo allo sëñ Jili. génn na ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax te rafetlu duggam bu am solo boobu. waaw mbokk mi nga tudd Alioune njaay ma nga fële ca géej waaye jaaykatu dénk la di ànd ak ñun jotaay bi. Mhm. jërëjëf Oustaz ñu ngi koy jaajëfal baax moom itam di rafet lu duggam bu am solo boobu sëñ Alioune 88 628 98 98. mawlaaya salli wa sallim dayman abadan ala habibina xayril xalqi kulli. mii dafa bëgg a bokk asalaamaaleykum wa rahmatullah. kooku génn na ñu ngi koy jégalu tey xaaraat keneen ci ginnaawam bu ñëwee rek ñu dalal ko defe nañ fukki minute ak juróom. لا غاية وانتهاء يا عظيم لا ولا لها ماد يقضى فيعتبر kii daal bëgg bokk xaj Mbàkke ne ko asalaamaaleykum aleykum salaam alhaji Mbàkke si la waaw Mor Fall Taximan waaw kay Mor na nga def jërëjëf yàlla yàlla nangu siyaar daa amoon ñaari ñaari laaj rek ñaari laaj bisimilah waaw ah, benn mi ndax dafay gis naa di di man laaj ndax euh, ku dul julli. waaw ndax de ni kooku dañ mën a compter comme jullit wala wala lañ koy compter. d'accord. beneen laaj mooy aaya boobu ñu naan in aleykum la xaafisiina kiraaman kaatibiina ya'lamuuna maa laa bëgg moom soxna ñëwal ma ci. ndeysaan. incha allah. jaax na jërëjëf. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax te rafetlu dugam bu am solo boobu. mbokk mi mu ngi tuddoo madame Seck yaayu ummi Régina di ànd ak ñun jotaay bi. Mhm, jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax yaayu ummi eh, mbokk mi nee na oustaz kiraaman kaatibiin yaalamuuna maa tafaluun la bëgg nga ñëwal ko ci. waaw waaw suñu borom daf noo bind. Mhm. bàyyee ñaari malaaka. Mhm. ñu génnee àdduna fekk fa ñaari malaaka. bu ñu dekkee fekk ñaari malaaka. ñaari malaaka yi nekk ak ñun àdduna ñoo tudd kiraaman kaatibiina kiraaman kaatibiina mooy ay bindkat lañ mbàkke waaye kiraam lañu kiraam c'est-à-dire kenn mu leen a corrompre ba bañ change li bëgg a def ñoom duñ taxaw ci tey wala ñu taxaw ci wan wi nga neexal leen pour ñu changer la déedéet ñoom kiraaman li leen yàlla jox dafa la doy sëkk moo tax kenn mu leen a korom mm-hmm. kaati bi na dañoo mën bind maanaam dañoo xam kenn ku nekk loo def ni ñu koy bindee mhm. ya'lamuuna maa taf'aluun monsieur Koron ci laajëm bu am solo bi allah jërëjëf ci tontu lu am solo li ñu jaajëfal ko bu baax te jaajëfal la oustaz ka xaaraat keneen ci ginnaaw nee na sax oustaz ki nga xam ne du julli hmm. eh, lan la ci lislaam wax ah, waaw ki nga xam du julli ci lislaam wax moo xatu ko rek hmm. mooy dañ koy laaj lu tax doo julli hmm. bu ne julul du farata ñu xam ne génn ci diina ji bu ne julli farata la da ko da ko da ko sàggana def ñu bàyyi ko fa ko yedd rek nga mhm. sukkuraan jërëjëf jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal baax te di la jaajëfal di xaar keneen ci ginnaawam على حبيبك الخلق كلهم ووالدينا وأهلنا وجيراتنا وكلنا سيدي للعاف مفتقرا waay ndeysaan mbokk mi daa bëgg a bokk ñu dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Oustaz Mbacké waaw ñu ngi lay nuyu di la ziar jërëjëf jërëjëf bu baax a baax jërëjëf yal yàlla nangu siyaar hmm. man la Alpha Omar nekk Wakaam Cité Avion. Alpha Omar naka waa Wakaam. ñu ngi sant yàlla ba alhamdulilah. alhamdulilah jërëjëf. waaw ñu ngi topp waxtaan bi di kontaan seen bu baax a baax tamit. jërëjëf jërëjëf Alpha Omar. waaw léegi man dama doon laajte si suratu Maayda. suratu Maayda waaw. ma aaya cent cent treize ba cent seize. cent treize ba cent waaw d' accord. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu suñu imaam tamit oustaz imaam Diaw tamit bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax te rafetlu moom itam euh, dugam bu am solo boobu. di jaajëfal mbokk mi di soxna Roqe Thiam ma nga fële ca Géejawaay. Mhm. di ànd ak ñoom jotaay bi. jërëjëf Oustaz ñu ngi koy jaajëfal 88 628 98 98 33 841 22 33 ci kanam tuuti ñu ñëw ci laajam boobu. Mouhamad Kebe Ali Imran asalaamaaleykum mi ngi àndal jotaay bi. Eh, ajran wa maghfiratan. maam ke maam Xewe Njaay ci kër Mbay Faal moom tam nelawagul mi ngi ànd ak ñun jotaay bi. waaw xaaj Mbàkke ci laaj boobu mbokk mi ñëw léegi ci suratul maayida aaya 106 di tolloog fi borom bi di wax wa id qaala allahu ya isa bna maryam a anta xulta linnaasi taqiduni wa ummiya ilahayni min dunillah ndeysaan ba ay ji jeex waaw waaw mhm. sunu borom mooy taxawal yonent bu wax isa bnu mariam laaj koy laaj mhm. yonent bi yërëmoon ko ca laaj ndax sunu borom def na ko ndax yaa ni nit ñi mhm. yaag sa yaay ay yàlla ngeen hmm. loolu la ko laaj ndax yaa ni nit ñi yaag sa yaay ay yàlla ngeen hmm. laaj bi na de rëy na lool mu ne ko man mii hmm. musuma leen ko wax hmm. maa xultu lahum illaa ma amartani bi lépp li nga ma digal daal laa leen waxoon waaye musuma leen wax mukk moo tax da ko wax subhaanaka maa yakun lii an aqula maa laysa lii bi xaq sañu ma wax lu dul sama maanaam lu ma sañul ne ko nag in kuntu xultu faqad alimta laaj bi nga may laaj bu fekkee wax naa ko xam nga ko bu ndax yow xam nga li may xalaat man nag xawma li ngay xalaat innaka anta allamul xuyub yaa xam lu kumpa man nag xawma kumpa waxuma leen lu dul li nga ma digal mooy ñu jaamu yàlla mii sunu borom ba ma fay nekk nag moom mën naa garanti ne kenn musu ko wax <laughs> kenn musu ma wax yàlla nga sa yaay yàlla ba li looy dund lépp kenn mësuma ko faa waaw mm-hmm. moo tax sëñ Mbàkke ku bëggal sa waay jàmmit doo ko wax ne yàlla nga mm-hmm. ndax danga koy dugal ci giraawaali question yeeg tontu yi mm-hmm. ndax kenn ku ne sa sa sa sëriñ wala sa pap wala sa dàngam yàlla nga rek dugal ko ci question bi ndax yàlla dana ko laaj mu ko nag Uh, wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim li may dund lépp loolu mën naa seede ne kenn musuma ko wax musuñu wax sama yaay yàlla nga kenn musuma ko wax ba nga ma fa jëlee nag kunta anta raxiba alayhim la fa xew yaa ko xam wa anta ala kulli shay'in shahid ndax yaa fekk lu nekk ba ma ñëwagut yaa fa nekk ba ma ñëwee yaa fa nekk mm-hmm. ba ma fa jógee yaa fa nekk mm-hmm. léegi daal in tuazibhum fa inhum ibaduk bu neexee duma leen bu la neexee duma leen ndax wax ma ne yàlla ga yooyuwuñ ko wax ko sama yaay yooyuñ leen kon nag bu la neexee duma leen wa in taxfir lahum boo leen baale nag fa in fa innaka antal azizul hakim yaa ko sañ allahu akbar allahu akbar si cheikh mu ne buñ dégg laa ji dee dañu naa xanaa kon dem sawar a xewi na dëgg la tubarkàlla jërëjëf oustaz ñu jaajëfal ko dese nañu ay minutes yu néew ngir yëkkati jotaay bi une heure jot ba teg ñaar fukki simile ñaar aca saadun saidu bnu awfin talhatun wa abu ubaydatin wa zubayrun saadatun urara Amen.

حمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر ما نزالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جنى ليل الداجي أو بدا الصحراء kii Aysa Njaay la tudd mag fële ca Pikine nee na ñu wax Sëriñ Mbàkke moo ñaanal ko kii ñoo ko tudd ma nga ca jàmm gën madame Ndour ma nga fële ca Dakar di ànd ak ñun jotaay bi tijaani xudwatina cheikhil machaikhi ya tubarana wa mbay njaay ma nga ca Sébikotane nee na nelaw gutte wa abdihi najli usman alladhi intasharat bi tariqatuha ya hababa wallaay ndeysaan kii daa bëgg bokk xaj Mbàkke ne ko ñu dalal ko asalaamualeykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah bismillah Moussa Siis Kër Madaaro Moussa na nga def ñu sant yàlla Siis am ñaari laaj ma bëggoon laaj rek ñaari aaya bismillah bismillah suratul baqara mhm. walladina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika asxaabul naari hum fiha xaalidoon mhm. aaya trente-neuf d'accord ñaareel bi walladina amanu wa amilu saalihaati mhm. ulaika asxaabul jannati hum fiha xaalidoon d' accord jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey lu duggam bu am solo boobu. waaw dugg bi am na solo ci mu ngi tudd Alimatu Yàdd mu nga fële ca Tiwaawan di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf si wax na Alimatu une na ba teg ñaar fukki simili ak juróom. Mm-hmm. Moussa ca surat al baqara dem ak ñun oustaz aaya 39 ni mu ko waxee. walladina kafaru wa kaddabu bi ayatina ulaika ashaabu naari hum fiha xaalidun. ndeysaan. Mm-hmm. waaw waaw mooy kero ba mu nettilee bëreeb Adama baag. Euh, iblis mhm. te aadama am defet ba mu ne leen ihbitu minhaa jamii'an mhm. bis na ka tey wàcc leen mhm. jóge ci aljanna ji dem ca suuf te liggéey fa immaa ya'tiyannakum minnii hudaa danaa leen yónnee njub bu njub li ñëwee nag faman tabi'a hudaaya falaa xawfun alayhim wa laa hum yahzanuun door nag wallazina kafaru ñu weddi njub googee wa kazzabu bi naa weddi màndarga yi wane ne maa yàlla mm. ulaayika asaabu yi ñëpp lay duma ndeysaan mu fiyaa xaalidun te duñ ca jóg est-ce waaw est que bu bu benn bi ñëw nag mu ne wala si na wala si na amanu amanu boobaay aaya 82 mu ngoog <laughs> wa amilu saalihaati ulaayika hum fiyaa xaalidun jeex na takk mm-hmm. ñi nga xam ne ba ba njub la ñëwee mm. dañoo nangu ñooña ñooy ashaabul janna mum fiyaa xaalidun ñoom tam ca la ñuy sax ma faw muy ay teraanga dul jeex mukk wa shukran ci laajëm ba am solo bi jërëjëf ci tontu lu am solo looloo ti ñu jaajëfal ko baax te jaajëfal la oustaz xaar keneen ci ginnaawam lim daiman abadan ala habibikal xayr euh, na yàlla nangu rafetlu émission bi. jërëjëf jërëjëf kooku dagg na waaye ñeenti minutes rek moo tee ñu yëkkati jotaay bi ñu xaar ko bu ñëwee ñu dalal ko. bu ñëwee ñu dalal ko ki mu ngi tudd Omar Ndiaye mu ngi fële ca Tëngéej ak soxnaam di ànd ak ñun jotaay bi. waaw koy ñu ngi koy xaar. bu ñëwee ñu dalal ko ñetti minutes ci des 88 vingt 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. waaw. Moustapha Niang. na ngeen def ak coono yi. ñoo lay nuyu bu baax di la siyaare. alhamdulilah. di kontaan ci waxtaan bi bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. waaw di siyaare Oustaz Alioune Sall. alhamdulilah. waaw di leen siyaare ci weeru gàmmu sell yi rek. jërëjëf. waaw ah, di sàkku ci yéen ñaan rek ngeen dolli ñu ay ñaan. Mhm. di ñaan ci yàlla ci jaamu yàlla ci weer yi rek yàlla ñu ci yàlla defal ay ngëneel. Mhm. bu baax a baax a baax. jërëjëf. waaw dañ doon laaj ci Oustaz Alioune Sall dañuy dem fu nga commencé julli liqaam ba jeexal liqaam bi doon julli timis hmm. ci misaal julli ndax da delluwaat liqaamaat wala da ngay da ngay continuer rek comme fekkoon na xotoon nga julli timis bi wala dee hmm. nga juum wax loolu noonu nga war a def jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax rafet nañ duggam bu am solo boobu. mbokk mu ngi tudd Adama Seck euh, daan ànd ak sunu jarbaat ba soxna Zeyna bu Faal almarhuma hmm. nee na mi ngi ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax di ko nuyu moom itam mbokk nee na kii day julli timis dem na ba ne ci biir julli ga door a fàttaliku ne li xaamut euh, nan lay def. waaw ni muy def mooy ñàkk xaam yàqut ak julli. Hmm. ñàkk li xaam yàqut julli. Hmm. dem bay bëgg julli it. timis ne geexalaay julli ca mm. yéene ja mm-hmm. yàqul li xaam nga mm-hmm. julli gi la yàq waaye yàqul li xaam nga wallahu taala wa shukran ci laaj bu am solo jërëjëf oustaz tontu lu am solo loolu euh, benn minit rek moo te euh, fanweeri simili tegu ci euh, benn waxtu ci guddi gi seen naa kuy fëgg xanaa kon moom la bëgg jël rek muy auditeur bu mujj bi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. Aji Pape Mor alxaaji Mbacke Sylla maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax yaa muallim waaw <laughs> <laughs> nañu bàyyi oustaz sax oustaz ñu wax yaa muallim dégg nga mm, macha allah naka waa eh, eh, oustaz Alioune Sall ñu ngi lay ziar bu baax yaa muallim oustaz Alioune Sall jërëjëf waaw ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ndokkeel ci weer yi jërëjëf jërëjëf ñu leen ñaan yàlla ñu fekk waat ko ay déwén yu bëree bëri bëri amin amin yaa rabbal alamin ñu mën a bari salaatu ala nabi ñu bari ñu bari ci bu bëree ñu def ci lu bëree bare bëri incha allah ñoo ngi rafetlu seen seen jotaay bi bu baax baax jàngee ci lu bëree bëri bëri. waaw maa ngi la dégg Oustaz Mbacke nga ne El Hadj Ma Seydou Hadj Malick xam naa ne bu bu Seydou ñëwoon dana ko dana ko dana ko takkal garaat. <laughs> wallaay dégg la boo demee ba ba ba ku ñu garaat yi su day si di jàng sin diidi. bu hmm. maam borom tubaa waa waa waa waa Maroc di def burdu waa Algérie yëpp di def burdu àddina bi yëpp Turquie. Hmm. wax dëgg yàlla ñu sant yàlla bu baax islam lépp ci ndam suñ maam yi rek. Hmm. ñu ci kontaan bu baax a baax seen jotaay bi rafet na lool ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di leen gërëm. jërëjëf. ah di nuyu suñ mbokk Oustaz Alioune Mbacke Alioune Alioune Mbaye ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar. jërëjëf. alaaji Pape Ndiong Sall dégg nañ ko léegi macha allah rafet nañ ko bu baax a baax a baax. Hmm. ñu ngi nuyu suñ mbokk Sud FM soppee Sud FM diaspora yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu Oustaz Mama Seck di ko bu baax. di nuyu soxna Ndeye Camara ñu ngi koy ziar moom tamit saa xasandir nga niñ ko def ñu ngi koy nuyu moom tamit di ko ziar bu baax jërëjëf ñu ngi nuyu ñëpp ñu yàlla boole kolore ñi ñaan yàlla tàmmal ñu suñ kolore bu baax baax ak yéen ñëpp yàlla defal ñu jàmm defal leen ko ñu leen di ziar bu baax di leen ñaanal jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ay aw ma laaj jërëjëf rek jërëjëf aji Pape Mor ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax oustaz euh, moom ñëw na ndaale nuyoo waa yëpp waaye tombeek waxtu wi war a jeex tombeek waxtu war a jeex ci mu ngi tudd Ousmane Diaw mu caaro yu sur mer di ànd ak ñun jotaay ñu jaajëfal ko moom itam te jaajëfal ñi doon tocc toccal ba egsi ak ñi nga xam ne jotuñoo egsi ak ñi yónnee ay message ci téléphone bi jaajëfal la yow tam tabaarakallaahu ci laaj yeeg omat jataay beeg tontu yi ni mu demee kon nag li ci tege mooy li ci tege mooy oustaz dégtalaat auditeurs yi tafsiru quranul karim bi ñu amoon ay bis yi ñu gën génn buñ ca noppee dégtal leen alkitab noonu la ñu wéyalee ñoom jotaay bi ba 6 heures 30 jot incha allah